mbokk internet yi sa foo teewlu info 2S TV dal leen ak jàmm ci xibaar a ñu wax nag ci lu soxal mbirum élection palum jiitum réew yi ñu dégmal di ki ñaar fukk ak juróom ci weeru février atum 2024 ci noonee nag ñu gis ne conseil constitutionnel nag daal dina clôture ni ki ni démb ci talaata gi ba minuit di jot li nga xam ne moom mooy dépôt dossier candidat yi waaye nag daal dinañ ci nemmeeku lu ëpp juróom ñaar fukki candidat ñoom nag ñu daal déposé euh, seen i euh, dossier waaye nag euh, ci ay gis nañ ne nag li nga xam ne moom mooy séance tirage bi dinañ ko def a ni ki suba ci alxamis gi di mook ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru décembre atum 2023 mu nekk nag tirage boo xam ne dañ koy def ngir xool ban candidat lañ ci euh, njëkk a tànn waaye tam segg ci wàllum parrainage bi ci noonu nag lañ koy xoolee euh, ca conseil constitutionnel waaye nag gis nañ ne euh, ci candidat yu bëri yi nga xam ne ñoom ñoo déposé woon nag am na ñoo xam ne nag ñooñu daal dinañu lem seen i bagage te daal di toog ku ci mel ni nag kii di Abdourahmane Sow capitaine Touré moom itam tamit eh, daal dina renoncé ci candidat bi mu fësaloon Fatou samake Thiam momi tamit dal dina renoncer ci eh, candidat bi nga xamné ne waxoon na eh, mu melni mbir mu nu mel nak nekul lo xamné tiaxan la ndax nak parrainage ak caution wa itam sélection bi nga xamné conseil constitutionnel da koy amal lolé nak waral na be candidat yu bëri dal di renoncé ci li nga xamné mom mo nek nekk candidature di di jajeufal bu baax te di len